ah léegi l'homme d'affaires que vous êtes. yaa ma wax sànq ne ma euh, nekkoo euh, un opposant un régime. moo tax permettre nga mën a liggéey ak Abdou Diouf Ablaye Wade euh, Macky Sall ak bon voilà tey c'est un autre régime qui qui vient l'homme d'affaires que vous êtes dina collabore ak ak régime bi bi bi ñëw tey. waa bien sûr bien sûr xam nga bon. ak les termes de la collaboration lan lay doon. non non les termes de la collaboration c'est c'est très clair c'est très clair parce que bon nday ji mi liggéey mooy Ousmane non mooy ndey ji mbir liggéey. comment ça non il faut qu'on nag. loolu tamit jamaay lañ fal waaw fal nañ nit ak ndey ji mbir bi ñaar en combat nit yàgg na ko xeex ba pare ñu fal keneen. Mhm. loolu kenn amul xam nga sénégalais yi ñu dugg ci affaire boobu. ndegam ñoom nee nañ jomaay mooy sonk sonk. <laughs> non non non loolu am na ay limites waaw xaaral xaaral xaaral <laughs> bien que ñun bi ñuy campagne. Mhm. on l'a un peu critiqué parce que ñun li ñu doon wax boobu campagne la. man dama doon wax ne je ne pas jomaay. Mhm. man si surtout Sonko Sonko mooy dem du ma posé sama candidature. ah oui oui damay ànd ak moom ndax moom xam naa ko bu baax ndax on se deux depuis 2009 et c'est vraiment jaar nañ fu ne. jaar nañ fu ne euh, des moments jaar nañ ci waxtaan luy defar dëkk jaar nañ ci luy defar daara jaar nañ ci luy defar diine jaar nañ ci lu bare bare. Mhm. et je pense que l'exemple bi ci mujj rek mooy dama koy wax sax ñu bari bëgguma ko woon wax xam ne sama élection yi Kaolack 2022. participer na ci indirectement. comment ça naka la ci participer. parce que xam ngeen 2022 moom amul woon candidat Kaolack. ok waaw il ne voulait pas choisir un candidat. Mm-hmm. waaw parce que il m'a il pour que wax na ko sax pour man ma nekk candidat seen candidat mais xam nga boo nekkee koo xam ne da nga nekk ci ci digg bi. Euh, président Macky Sall wala ne la kaay nekk candidat nga nekk sama candidat ñii ne la kay nekk sa candidat te man ma bëggoon une liberté totale mm-hmm, mm-hmm. a dem wuyu ak man ni ma tuddee ànd nawle bi j'ai préféré dem avec tous les risques ah, ñu bari ne nañ moon doo gagné mais ma ne bu ma gagné wul ma xam ne loolu am moom parti parce que proposé wul candidat bul fàtte deux mille vingt deux pur moo amoon candidat mais Pastef amoon candidat mhm. et vraiment tamit daf ko def exprès a déet bi ñëwee ba Fatick ñëwul Kaolack jàppale yàqalu la maanaam yàqalu ma wax dëgg yàlla yàqalu ma mhm. yàqalu ma en même temps tamit li ci am mooy diggante temps boobu dañuy waxtaan dañuy waxtaan mais pour te li ñuy proche proche suñu waxtaan ci affaire détail yi nga yi ñuy wax ay affaire Adji Sarr ay nag mosuma ci wax ak mm-hmm. moom mm-hmm. man dama daan ruus sax woo ko naa ko nangam xanaa naka coono yi wala nangam et li ci mujj mooy deux mille vingt vingt vingt trois janvier vraiment au moment quand même le gouvernement a boycotté waaw mooy sa activité yi CNCBM bi anniversaire bi est venu vraiment jóge mm-hmm. loolu benn ci moom la benn ci man ci moom nangu na ñëw seet si ma parce que euh, leader politique la fu mu ñëw tamit am na lu muy marqué bis ba mu fa ñëwee ñëpp yëg nañ ko man mi tamit nangu naa ko recevoir. Mhm. parce que man ndax gis naa samay morom yoo xam ne nii euh, bu doon ci ñoom lay ñëw duñ ko nangoo duñ ko nangoo jël ndax. waaw ne mi sax le polisement m'a appelé. Mhm. pour ma poser des questions. Ah. Euh, lu lan la fi wax lan la fi def. ah ça waaye waaye quand même quand même peut c'est normal c'est pas normal. mais quand même j'ai répondu parce que. police woo na la laaj na lu Ousmane Sonko doon wut doon wut sa manifestation bi. waaw woo nañ ma bon laaj ne dafa ñëwoon lan la doon wut may leen ah man damaa ubbi di jaay mu ñëw di seet. te sama wóllare la maa ko invité. et j'ai invité d'autres personnes ndax mm. la veille. Habib si ñëw na fa Abdoul Mbaye ñëw na mm. Mohamed Boun Abdallah Diome ña ñu bari ñëw nañ fa. Mm-hmm. je ne voyais pas la nécessité mu ne dafay ñëw ñu ne ko ñu ne ko. temps yooyu nekk xaritu waaw mais euh, nit boo gëmee dara da nga koy gëm. Mhm. ndax man euh, nekk naa xaritam président Macky Sall xam ko xam ko bu baax parce que euh, xam ko parce que soo toog naa ak moom après kon man daal. gis nga mais xam loo ko gëmee ba mu jaral la nga ne bu fekkoon il est candidat doo doo doo samp sa sa sa ndënd lan la qu'est-ce qui vous a convaincu son discours prestance bi injustice bi mu doon biir bëgg naa xam. waaw parce que li tax li taxoon loolu mooy am na yuñ bokk ndax man ñett rek moo ma ñor. Mhm. ci ci Sénégal nuñ fexe mën a économie bi ñun ñu nekk euh, fii ñu nekk ci priorité gisoon naa ne ci discours am mi ngi ci bi mu ñëwee sax foofu. Mhm. discours ba loolu la fa wax ñaareel ba mooy nan lañ mën a fexe ba jàppale euh, daara yi ak tamit euh, toppatoo ko ba nga xam ne daara yi dana. am wàll gi mu war a am ci économie bi à contrepartie tamit moom mu nekk en normal boo xam ne nii danañ ko considérer ba nga xam ne tey sénégalais du am ñaari type mhm. parce que comme tey ñi ngi wax égalité des dañ mhm. naan ndongol daara yi ñu jàng fi te mënoon nañu wax sénégalais sénégalais bi mën naa wax loolu war nañ loolu lu ma ñor la te yaakaar naa gisoon naa daan nañ ci waxtaan li ma lay mhm. wax ne la ëpp na dix ans vingt ans dañ ci daan waxtaan ndax euh, euh, ku ma xam xam nga ne moom ci boppam xam na ko ay yoon jël naa ko fii buntu këram ànd ñu dem kokki boobu politiqueul deful dara. Mm-hmm. Euh, beneen bi kon seen seen xamante yàgg na. non yàgg na nee naa la depuis 2009 léegi beneen bi ci topp mooy li ma ñor mooy nan lañ mën a defee pour nit ñi am emploi. parce que emploi pour liggéey ndax loolu mooy ànd ñaar yi boo ko réglé ak mbay meeg yooyu yëpp dafa daf ci am solo daal en tout cas te bi mu nekkee maire ma nekk maire daanañ échange ante li ma ko ëppalee ci xam-xam mm-hmm. ba ma ci laajee ma wax ko ko nan la ñuy développer entreprise tout ça leneen li nga xam ne tamit bu ma li may ëpplee ci nan la ñuy defee gestion municipale mu def ko boole na ma ak ay nit yoo xam ne nii euh, maa ngi maa ngi doon liggéey ñoom kon dama jàppoon ne bu fekkoon tey génn na te jeu démocratique bi leer. Mhm. xam nga jeu démocratique bi leer parce que il faut dire clairement. jeu démocratique bi leer nañ man naa am du ma fi nekk di di fi wuti candidat parce que même tey jii su ma gisee tamit ne li ma bëgg ci Sénégal ñoom ñu ngi ciy répondre mhm. pour war koo mën a def jàppale leen ñu avancer ci moo ci gën man li ma ñor du nekk président de la république parce que à part motard yu lay wër wala nangam gisuma leneen lu ma mën a yokk amul dara lu ma mën a yokk mais léegi tey jii nii au contraire liberté la ma gën a mën a jox sax ci nekk président parce que maire bi ma doon sax. Mhm. amatuma liberté ba ma amoon. delluwaat la ma nekkoon moom a gënal mais compte tenu que man maa ko engagé. Mhm. pour avec des Kaolackois il faut que je termine ma mandat et essayer su ma paree ma def ci résultat boo xam ne ku dikk da ngay yokk rek waaye doo doo doo yàq.